الذي أغناني وأعزني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 mooy client bu ñëw ñu def la ab star alors qu'attendez-vous ñi ngi nekk marché Tilène rue 19 angle 18 téléphone 77 462 41 41 ou le 77 681 57 38 ou 77 924 45 20 dama ni neexul ba neexul waaye or bi jeg ji bëgg noo boutique Zamzam rek la alhamdulillahi alladi jeeg bu siis moom mere stress boo koy seet si bett kaa ci ren yow mos ku ko mos بريت من شم ذاكر ko naan na ko xam. ak Punch rek teraanga fii la fekk baax. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم alhamdulillah gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musli shaytaan ak bakkan ñi ngi leen di ziyaar deen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ñooy topp Ali Imran ak fu ñu mën di nekk ñi ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare di nuyu waa ji Mouhamed Lamine Cissé ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaar di nuyu Baye Diassé tabarakallahu Seyda Fatima ak mboolem ñi nga xam ñooy sopp Ali Imran ak fu mën di nekk ñi ngi leen di ziyaar baax di leen tatagal bu baax leen baalu xaq ci koor ge korite gi ñaan yàlla buy del si déwoon yàlla ñu fekk te romb ko bi jaayi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yàlla bu mu nekk suñ mujj koor yàlla bu nekk suñ mujj korite buy del si déwoon yàlla ñu fekk te rafetu fekkin bi jaayi sayidina muhammadin darsi bil anbiya ñu ngi doon jàngat kàccoor bu bon boobu le di abdul abraha digganteem ak abdul mutalib mu baax moom la nga xam ne mooy maami sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ndax abraha demoon na ba gis ne adversaire bi nga xamante ni moo ko lëjal ci addunaam moo ko yàqal li mu bëgg da ko war a liquider te mooy kaaba ak yàlla gi ndax tabax na kaaba boppam ca dëkk bu ñu wax yaman ca Shanaan tuddee kaaba ak li ñu ba mu defee loolu gis na ne nag kaaba ak yàlla gi bu fi jógul moom li mu bëgg du ko am ñi nga woon di jàngat nan la def ba yàlla dogal mu tabax kaaba ak li ko dawaafee mboolem yi nga xam ñoo ko poussé pour mu tabax kaaba pour jéem fay jëlee kaaba ak yàlla gi ndax jàpp na ne mooy adversaire am te faaw mu liquide ko bu ko defu rek su ko liquidé rek dana jàpp ne moom dina am li mu bëgg waaye loolu njuumte la yàlla moom su nammee mbir lu nammee mbir fa mu ko war a jaare dana ko fa jaare ba li mu war a am mu mën a am Abraham a ngay def ay pexe waxoon naa la ci dar si weesu ne dépare na yaman wuti makkatal mukarama pour jéem a dajji néegu yàlla ba ba nga xam yàlla nga ko tabexe woon ci suñu maam Ibrahima moom la digg ak doom ji Ismaila ñi yëkkati fondement ba comme ni ko teg sa Qur'an bu leer nañ APEX départ na ay kilifa yu mag daje nag moom pour jéem ko gàllankoor bu mu àgg ci néegu yàlla ba waaye kenn ku ci nekk am na lu mu jëflante gi yow ba munoo ko gàllankoor ba yegg na fa mu war a yegg waxoon naa la ci ginnaaw ne ba mu deparee ku ñuy wax su nafar moo njëkk génn daje ak moom ne dana ko gàllankoor na xeex ak moom pour daal li mu bëgg bu mu ko def ndax bu dajji néegu yàlla bi daal dina nekk kirim bu rëy dina nekk toor bu rëy ndeysaan Abra di borom doole lool ku bëri at ku bëri alal bëri ñay bëri soldaar bëri lu ne soo nafari mi jigut ko Abraha daf ko jàpp jàpp ay jaam ci ñoom lu bëree bëri duma ko pris tëj tëj ko comme prisonnier nu koy loolu Nufayl ibn Habib départ na it alxathami pour dajeek Abraha gàllankoor ko Abraha moxoña ko motoña ko jàll allahu akbar mooy du buur bari doole waaye xamuloo ne nag inna al asal inna al asala wala inna summ fi daaka al azal léeg-léeg ngay naan lem di ko naan nga yaakaar ne lem jaa ngi neex ngay continuer di naan wallaay tooke jalay rey ma nga ci biir lem ci te yëguloo ko wallaay bànneex boo gis fa ñu mujj du neex abraha nag ma ngay poñati di jàll rek góor la daal bu bari dool yàlla kattanal na ko mu duma ko ñox na Habib al-Xathami continue booleen ko giir ñu Zahran ak Naish ñaari giir la booleen dajeeg moom ndaysaan abraha duma ko nangu lam amoon lépp jàpp ko ndaysaan koo ko def intervention ne ko dimbale waaye ayool malik laa taqtul nii ko buur bul ma rey dimbale ma bàyyi ma dem abraha defal ko loolu ndaysaan nag buur bu am tolérant la buur bu mën a muñ la ñaaree boo ko ñaanee dara rek mu may la ko li mi saay saay saay saay li mi bon bon bon bon soo ko ñaanee dara ne dimbale mu may ma ko rek ndeysaan mu may la ko loolu la may Nufayl ibn Habib ba tax rayut ko noonu la continuer noonu la continuer ba jaar fa ñëw Taaifa mu demee Taayif yëpp jéggalu Taayif yëpp sukkuraam <laughs> la ci gën a doy waar mooy nahnu abiduk innama nahnu abiduk ñëpp na ko ñun daal dëgg-dëgg say jaam lañu mel ni daal dëkk boobu moom keroog kuy takk tubay nekku ñëpp na ko ñun sañ jaam lañu ndax doolem ju bari ak soldaaram yu bari ñun daal déglu nañ la saami'uuna laka muti'uun loo wax loolu la ñuy def yow la ñuy déglu jox ñu ndigal <laughs> ñi neexal ko sax ne ko xaw xamul sax dañ la dimbale pour nga dem makkatal mukarrama dañ la booleeg benn waaye bu lay judd koo tam mooy tudd mooy xafiir li arab da xafiir mooy judd dina la orienté la ci yoon ba nga àgg makkatal mukarrama ndax ñun waa taifa xam nañu ne suñu alal yi suñ jot a amakas néew suñ néeg yi ñu jot a amakas néew taxulaa jóg lii la tax jóg mooy innama turidu bayta waaw yaa ngi mu néeg ba nga xam ma nga ca makkatal mukarrama allahu akbar ñoo ñëpp jéggalu supp na ko daal ñun daal yow rek la ñuy déglu yow rek la ñuy topp ndeysaan boole ko ñu wax abaari mu nekk xafiira mu nekk guddam di ko orienté pour yóbbu ko makkatal mukarrama ndeysaan ñu ànd ñaar mais sërif li doy waar ci xisa bi mooy abaari mii ñu ko boole pour mu gidd ko yóbbu makkatal mukarrama bi ñu demee ba fu ñu wax mu xamis la ñu campé ba ñu ne fu ñu wax mu xamis fa la ñu campé abaari xaal fa la deexee abaari xaal moom mbir mi jigu ko fa la deexee yàlla dogal nag mu dee foofa ñu suul ko fa léegi nag Abdul Mutalib ma nga fa campé fas yéene euh, Abraham ma nga fa campé fas yéene xool waa Makka nu ñuy réagir xam nga li tax ak mbuur bon li tax ak buur bu sàccoo kàccoore bon moo ñaaree lépp loo tenté rek bu réussir da ngay tentewaat beneen chose amaa amaan sax tentative yooyu ngay def da lay lay jógee waaye lépp loo tenté bu réussir en cent pour cent da ngay tenté beneen mbir moo tax gis nga li tax nguuri àdduna yi léeg-léeg gaa yi ñu du leen di dese comprendre loolu ci la ñu bokk gis nga pexe mu ñu la daggal sërëxal mu mooy ñu teg meneen te tax tegal la ndagg sërëx mu mooy lu jafe la ci ñoom lu jafe la ci ñoom ndax liñ leen di booleel moo bare Abraha ñëw teg na stratégie pour na xool nu ñu ka faagagalee waa Makkatal Mukarrama ci looloo nag ci la toog ba mu yàgg mu yabal ku ñu Aswad ibnu Maqsuud am ñu bin Aswad ibnu Maqsuud ne ko demal ma ci dëkk ba soo demee nga xool dëkk ba nan ñuy réagir Aswad ibnu Maqsuud la yebal ne ko demal nga xoolal ma dëkk ba ñoom lu ñu nar lan la ak nu ñuy def lan la suñu deful dara duggal ci penc ma saaga leen tooñ leen nangu sa alal ñëw ba xam nan la ñuy def ndax dañ xeex ak yow wala duñu xeex ak yow boole ko quelque ay personnes nag mu ànd ak ñoom dugg ca dëkk ba ndeysaan waa jaa ngay daagu ca penc ma allahu akbar ca penc makk ma kaaba ga la ko wër lay daagu di saaga nit ñi te jigéen jigéen ñi duma leen yenn góor yi mu xas leen ñii mu saaga leen ñii mu duma leen tooñ cokkaas ndeysaan kenn réaction kenn yënguwul ñëpp na tekk kenn dara allahu akbar ay waay yaa way moo tax góor gi dox yaa wayla abraatin dallat makidatuhu isma yasuuqa fayulan wala fuyulan qaasida alxarami la ilaha illa allah Asad bin Mafsuud dugg na ci dëkk ba tooñ na waa dëkk ba def na fa lu ne kenn wuyu ko wax na fa lu kenn wuyu mu boole ca nag ca tooñ nga mu nangu waale gileemi Abdul Mutalib yóbbaale ko ndeysaan Abdul Mutalib jot xabaar ñu ne ko sa gileem yi day buur bi fi ñëw di Abraha ñe fas yéene dajji néegu yàlla wi jël na say gileem mu yóbbaale waaw mu na ko waaw waaw jël na say gileem de mu ngi ko yóbbaale mu ne ko naka la mun ne ko jël na fi gileem yu bari yóbbaale na ko ma nga boole ci ay gileemam Abdul Mutalib kilifa la ñaare kilifa du faj mer du faj soxlaam ci biir mer waaye du ko faj ci ko kontaante ndax boo kontaanee def boo defee du baax soo kontaanee soo meree def ñaaree boo defut bu ci ndimbal yàlla dikkul rek la ngay def mën naa ñàkk baax moo tax daal def daal ne ànd ak sago moo tax yun saas la ba waajal lëfër lëfër yi xëfër xëfër egg si ne ko yaa Rasulullah dama bëgg nga dénk ma <laughs> mu ne ko ah bul meer nag ah mu ne ko bul meer de ndax ko mer noonu borom la sërif meer balaay gaañ ki nga mere ñaare mu gaañ la yow mook añaan dañoo xaw a nuroo tuuti kañaan balaa muy lor ki ngay kañaane ñaare mën na na laa gaañ yow doog a jëm sa ka ngay añaane Asad ma Mas'ud daal di dem ca dëkk ba def lii ma la wax ni yëpp am na ñu mu jot a duma am ñu mu jot a mu jot a saaga yàqale nga rek cokkaas rek comme day tooñ day cokkaas nu mu mën a jaar fa cokkaas leen pour ñu réagir dana ko def waaye dëkk yëpp ne ner ne nëmm kenn waxul kenn réagirul kenn réagirul mu dugg ci dëkk ba wëndeelu fu ne mu dugg mbedd mu ne mu dugg kenn ku ne mu wax kenn ku ne mu tooñ lenn lu ne mu def waaye dëkk ba kenn waxul ñëpp ne tekk rek màkk yëpp a ne tekk ndax dañu am kilifa Abdul Mutalib mooy seen kilifa jooju jamono moom la ñuy déglu ba xam lan lay wax nu muy réagir waaye Abdul Mutalib wax dara bu kenn yëngu bu kenn def dara nañ tekk rek gis nga boo ne tekk rek tekk la yoon Abdul Muttalib ne bu kenn def daal na ñëpp na tekk yàlla àtte nag Aswad al Mas'ud yóbbaale giléemi Abdul Muttalib indil ko Abraha mu dikkee ndeysaan rendre compte buur ne ko yow buur man ne dëgg naa ca dëkk ba yàlla dogal def naa lii ak lii ak lii ak lii moo ko defee nag waa dëkk yëpp kenn réaction kenn waxul dara ñëpp ak ne tekk rek ñëpp ak ne tegg ñëpp ak ne dégg kenn waxul dara mu ne ah mu ne ko indaali naa giléem yi ki ñuy wax muy kilifa dëkk ba sax indaali naa ci ay giléem lu bare borom siira yi dañoo wuute am nañu ne ñeen fi gileem am nañu ne ñaar fi gileem la ko indi ala kulli xaal indil na ko gileem te gileem ca joo jamono matériel bu rëy la valeur bu am doole la jàppoon nañ ne ku ko amul sax daanaka la nga am ci alal bëreegul ndax bokk na ci liñ doon tiitaroo ndax jamono ju ci nekk la Seydina Ali waxoon gaañe ca seen ak kenn ku ci nekk ak jamono jaleen yàlla nattule Seydina Ali dafa waxoon ne dee leen yar seeni doom ñu tolloog seeni jamono ndax kenn ku ci nekk jamono jaleen yàlla bind yéen yiy bàyyi jamono jaleen yàlla bind bokkut ak jamono ji yàlla bind seeni doom moo tax maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum daana wax ni nuru sa baay nuru sa jamono ko gën waxi philosophe ju rëy la wax ju dëgg dëgg dëggul wax ju yaakaar naa bu Descartes dund woon mënut a toll wala Socrate wala Aristote ku ci dellusiwaat mun a wax wax ju rëy ni jooju wax ba mu desee nag wax loolu mu Moutalib mi tekkar ne bu leen ci wax déglu leen rek ah Assane Mansour nag ñibbi na rendre na compte buur bi Abraha ngi toog déglu déggul kenn réagir Abraha ngi toog seetaan déggul kenn wax dara incha allah ba mu toppee ci dar si bii di ñëw dinaa la wax Abraha bi mu yebalee Aswad ibn Mas'ud ba mu defal ko loolu mu koy defal ndax da caa yem wala yemul ca loo ci toppee dinaa la ko wax ak nam ci toppee nen incha allah ba mu toppee ci dar si bii ñëw dinaa la ko expliqué in uridu ila islaaha masaratu wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu